waaw déjà man dama au-dessus de la loi. waaw non c'est il faut il faut aussi xam nga neex na trop ngay wax sa xalaat dugg dans la critique dans l'analyse et tout mais aussi dafa am ay réalités yoo xamante ni ñoo la mag te li ko fi dindi du du bari hmm? surtout tu dépasses même le Sénégal faut pas qu'on soit rêveur parce que ni àdduna bi organisé si boppam boo ko xoolaatee ba ba ci biir biir biir le pouvoir nekkul sax entre les mains des gens forts maanaam. le pouvoir est entre les mains des des politiques politique ñoo yor ñoo yor pouvoir bi réellement euh, li ma ko tax a wax mooy bu fekkee ne da ngay génn cadre Sénégal pour que ñu ñu comprendre sama analyse sama sama compréhension que nous sommes des rêveurs on peut pas changer l'ordre du monde c'est le monde qui est ainsi conçu c'est notre choix nga dem aux États-Unis par exemple le juge il peut pas se il peut pas nommer mënul taxaw ne man maay <laughs> signer décret il n'a pas de décret une fois ñu nommé ko avis dootu génn mais qui, qui l'a nommé, c'est l'homme qui est investi d'un pouvoir politique. donc, pour dire que ce ne sont pas les, just, les, les, soldats, les forces de défense, ce sont les politiques qui détiennent le pouvoir en, en vérité. loolu moom mooy moom mooy dëgg quoi donc euh, il faut souffrir de ça li ci am solo mooy mu bañ am écart am déséquilibre ah autant que peut se faire ñu dem dans ce sens l'histoire de l'amnistie bi euh, xam nga la ñuy delluwaat dafa neex ñu dellusiwaat Parce que tout ça, c'est des prévisions, des répétitions, des hypothèses, tout ce que tu veux. Parce que l'histoire est très récente également. Madame Koy euh, qualifié ñetti aspect c'était un besoin politique qui a abouti à un problème politique et qui nécessite une solution politique donc ñetti ñetti besoin yooyu loolu mooy articulation problème bi boo delluwaatee si incohérence yi si am euh, Gadiaga la cité la la rappelé au départ il y vingt cinq personnes vingt cinq personnes yoo xamante ne justice dafa waroon am lu mu lijjanti seen ay mbir loolu li ko lal mooy un contexte qui était favorable parce que quand le président venait dafa bokkoon sax si thème de campagne réduction traque des biens mal acquis et tout y avait une adhésion parce que même si procès Karkari bi bi ñu nekk dans le procès une écrasante majorité des Sénégalais souhaitaient qu'on aille jusqu'au bout c'est c'est ça la perception la nga doon sentir dans dans ce pays donc ñu dem ba yem foofu muy pour man c'est inachevé yeggale wu ñu lu ñu proposé woon vingt cinq personnes nga waxoon nga jël kenn ki tëj ko pare ça veut dire que day justifier que c'était peut-être un besoin politique après mu dem ba dans la dans la marche du Sénégal boo si boolee bu Khalifa Sall mu nekk un problème politique mais y que la solution politique qui peut intervenir et on va aller vers ça maintenant ceci n'est pas nouveau également parce que bu fekkee da ngeen fàttaliku la première grande sortie du président Macky Sall après son sa réélection en 2019 c'était sur France 24 la même question de, de, de l'amnistie lui a été posée sur les deux cas il dit c'est possible il faut savoir je, je le cite il faut savoir tourner la page. Ça, c'était au lendemain de sa réélection, sa première grande sortie qu'il a faite en France avec euh, France Donc, pour résumer, pour bañ a jël kàddu gi, un besoin politique qui aboutit à un problème politique et qui nécessite une solution politique. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Je reviens à toi xaaral je dinaa la may. waaye dama doon dama doon question bu ma bu ma. man deux minutes rek laa wax da mais ah, grawul